Ok, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami en face du suprême honorable Abbas Fall Kantini et hmm. Merci beaucoup, Abdoulaye. Je que comme nous l'avons dit, nous avons pause. Depuis 8 heures, on est là. De participer ci Euh, pourvoi en cassation procès bi nga xam ne l' agent judiciaire de l' état dafa def un pourvoi en cassation euh, ñi ngi woon ci biir on a vécu une belle ambiance surtout avec la plaidoirie là où les autres parlaient de, de charabia. Et, jusqu'au moment où nous, sommes, nous le le procureur général a rejeté le pouvoir en cassation dàq na li nga xam ne moom la agent judiciaire de l'État indi woon ça veut que lépp ci ci droit la ko teg parce que ñoom lu ñu bëggoon avocat état bi mooy ñu rejuger affaire bi dans le fond avec de nouveaux faits alors que tey c'est le droit qu'il faut voir s'il a été dit par le juge Sabassy Faye donc même le procureur général rejeté na ce pouvoir bu dee sous l'angle du droit rek tey moom mënuñu am leneen lu dul un de satisfaction maintenant li ci des nag la Cour, elle donc euh, euh, autonome, comme on dit, moom mooy décider et euh, ñu ngi ñaan mu suivre li nga xam ni moom la procureur général <coughs> wax en loolu mooy euh, mooy ambiance bi fi am dañu nekk pause nag nii di taaxeerlu di xaar y a y a stress y tout tout le monde est préoccupé mais quel que soit ce qui va se passer, Inch'Allah, le président Ousmane Sonko aura toujours une victoire. Donc il plaise à Dieu que cette victoire-là commence, euh, commence aujourd'hui. parallèlement parce que ñun ñu ngi ci biir salle bi dégg CEDEAO bi wàcc euh, ñu débuté euh, e euh, bon pas sur l' ensemble des demandes ñoom dañu wax Euh, dañu ne Ousmane Sonko le président Ousmane Sonko ses droits n'ont pas été violés sur la dissolution du parti aussi ils ont dit que euh, donc ils rejettent euh, euh les demandes des avocats mais sur maintenant euh, son inscription sur les listes électorales boobu waxuñu ci waxuñu ci xam naa ils préfèrent laisser ça aux juridictions nationales mais dans en tout état de cause lu ci am. quelles que soient les décisions qu'ils vont prendre te mënuñu def leneen lu dul bu dee droit la bu dee droit la rek le président Ousmane Sonko aura toujours donc euh, gain de cause bu ñu defee leneen lu dul droit aussi par la grâce de Dieu le président Ousmane Sonko aura toujours gain de cause par A ou par B donc CEDEAO euh, def na lu muy def j'ai vu yenn avocat de l'État di euh, di tëb di dal di fecc te ñoom ñoo fi doon wax barki démb ne CDAO, c'est une juridiction supranationale, nous ne pas obligés de, la suivre. Mais le plus important, moi, c'est que la Cour dira tout à l'heure. Comme nous avons dit, on va... un avocat On espère aujourd'hui que la justice va se réconcilier avec le peuple sénégalais. Parce que la justice dans ce pays est malmenée depuis l'arrivée de Macky Sall au pouvoir et que ça doit être un nouveau pour la justice pour la démocratie et l'état de droit. ban euh, euh, waaw loolu wax nañ ko démb ci point de presse bi euh, appel bi ñu lancé mooy waxoon nañ ko à la mobilisation comme ça c'est vrai dans beaucoup de pays sans violence Sénégalais yi le président Ousmane Sonko leur a tout donné il leur a donné sa vie. il la fait le sacrifice ultime li mu mënoon yëpp def na ko tout def na ko dans le parti aussi nit ñi li ñu mënoon yëpp def nañ ko depuis mars 2021 ba léegi nit ñaa ngi xeex amul lu ñu deful et on va continuer à nous mais nag ah euh, liñ naan liñ naan liñ naan euh, janaxu comme nit ku yaa xam nooy rayee sa mbootu sa sa màttulal ah kenn ku ne yaay xam nooy tojee sa sa boppu janax président Ousmane Sonko deselutul dara Sénégal dara gàcce ngaalam li mu doon def yëpp def na ko c'est au peuple sénégalais maintenant de décider de son avenir pour le Sénégal et pour l'Afrique mais deselutuñu dara les gens ont fait tout ce qu'ils devaient faire ba suñ jon yàlla tey avocat yaa ngi xeex parti bi nit ñaa ngi xeex Sénégal yaa ngi xeex de façon démocratique amul dara lu mu leen def donc il appartient au Sénégal maintenant Sénégalais de prendre en charge leur